ಮಲೋ

laa ruxma lak illa min qibalihima ak lan ngay jokk say mbokki say mbokki ndey nga leen di jokk waaw day leen jokk jokk mbokk rawati na koo xam ne mook sa ndey ñoo bokk walla yéen a bokk ci wàllu baay jërëjëf mu ne day tax ba sa diggante ak sa waajur yi nga xam ne ñoo jiitu ah mun a du dog foo toll yaa nga mën a jokkoo ak ñoom kon jullit bi su fekkee ne d'accord na ci yii ma wax kon na xam ne li war ci moom ci ay waajur mooy lan taatuhuma fi kulli ma yamuraani bihi aw yanhayaani anhu mimma laysa fihi maasiyatu llahi taala wa muxaalifatan li shariatihi id la taati li maxluqin fi maasiyati xaaliq mu ne kon na nga xam ne kon déggal ndigal say ñaari waajur digg ndigal ci say ñaari waajur ah ci luñ la digal wala luñ la tere te loo xam ne mooy yàlla nekku ca mu ne xamal ne loola boo ko defee yàlla dana kontaan kontaan ci yow yéen sallallahu daal di wax ne na ngeen topp seeni waajur fii ak ñi ngi leen di diggal loo xam ne xam nga ne lii ñu lay digal njëriñ lay doon ci yow du nek lo xamne ne daf lay lor ndax la ta'ati li maxluqin fi ma'siyati al khaliq ñaarit bu mu ne monsieur le maire bi moy ñëw doon Moustapha Diop dugal ko après innama almuminuuna ixwa yéen julit yi ay mbokk ngeen fa aslixu bayna xawaykum na ngeen defal seen diggante bu kenn xaj seen ngeen ragal yàlla te xam nañ yàlla gis na lépp xam na lépp su ngeen ko defee rek la alam kat xamoon su ngeen defee yàlla yërëm leen bu ñu àndee rek dem bu ñu àndee am doole waaye suñ tàqalikoo néew doole wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhaba riixukum wasbiru inna allaha maa sabirin yàlla nee na bu leen xëccoo bu leen xëccoo bu ngeen ko defé rek mo ne li ngeen bëgg du ngeen tam am mhm. su ngeen andé nak am doole mhm. su ngeen andé doon ben rek am doolé mu misal ko ci de fekkone ni ñi kenn ku ci nekk ni indi na ab bant bantu balé ngeen dajé lako ni ngeen toll mhm. jox ma na ma damm ko duma ko mëna dam waye suma jëlé ben jëlee benn par benn dama koy dam par ben bam mu jeex sallallahu alaihi wasallam ne non ngeen mel yéen jullit su ngeen andé doon ben rek lu ngeen yëkëti man ko waaye su ngeen tàqalikoo mu ne ñu damm leen ni ñuy dammee bant bare mhm. kon nañ ànd te yàlla tax di waxante dëgg te bañ di jëwante waaw waaw yàlla bëggul jëw day yàq doo gis ci nit mu yor ko xamal ne wërsëgam la yàlla ko ko wërsëgam ndax yàlla nag ku ne ak la la yàlla jox ku xeebul sa wërsëg mu yor la ku xeebul sa wërsëg mu yor la te lu ngeen am bokk leen koog seen i mbokk bokk leen koog seen mbokk te mbokk nag ci ndëkk mooy ndey ak baay am yóbbu ca roq ba wala nga am yóbbu ca ku la neex bàyyi sa ndey sa baay yàlla yàlla gërëmu la de waaye ku defal sa ndey sa baay ba sa ndey gërëm la yàgg yàgg da nga gis sa ngërëmaal ndey da nga gis da ko gis sa kanam day feeñ. Mm-hmm. lu la sa ndey di ñaanal yàlla ñaanal li la sa ndey di ñaanal muy doon lu baax. gis nga sa ndey bu la ñaanee lu baax foo jaar mu dal la su la ñaanee lu bon foo jaar mu dal la maa la wax li allahu akbar sa ndey bu la ñaanalee foo jaar mu dal ndax yàlla nee na maa ko maa may ànd ak moom kon dee leen defal seen waajur yi sonn ci ñoom lu ngeen mën ngeen def ko te loo def xeex ko loo def say waajur xeex ko yokkal balaa nga koo xam nag daanaka mu dëddu balaa nga ko xam day dëddu waaw waaye dafa ñëw boot yaayam di tawaaf kaaba gi boot yaayam laa la de di tawaaf kaabam su tawaafee ba romb ba romb na ko su tawaafee ba romb rasulaay na ko rasulaay na ko kii kan la sa mu ne ko kii sama ndey la ah xanaa léegi tey ma jot ak xam de mu ne ko genn guddeem ci la ëmbee jotagoo ko ma ne nga waaxu laa wax allahu akbar moo tax yun sallallahu alayhi wa nee na àq yii nga xam ne waajur amal na ko doomam bi ci njëkk mooy mu ne na nga tànnal sa doom bàyyi ju baax bàyyi ndey ju baax yow bay na nga tan sa dom ndey ju bax boo tànnee ndey ju baax ah waajur tànnal la yow dom bi ndey ju bax dom ju bax nga ci ane waye li gor gi yaddi di wax nan bacc ci ñak bi rek lu nga ni jappal bacc ci ñak bi am lu tëb rek nga rek jappal na na soxna ngi jabar mu ne déedéet mu ne soxna dañ koy tànn soxna dañ koy tànn jabar dañ koy tànn dañ koy tànn ñoom sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen góor dana ko uti ngir yii li jamaaliha ñu ne nga ne kii kat dama koo bëgg soxna ndax dafa rafet dafa rafet motax tax koy wuti ki ne li maliha ki kii kay saa waay duma raw ndax fa am khalis li maliha alal je tax da am alal yaayam am alal bayam am alal ki ay ñu leer leer yu bonel xale bii duma raw am ñu xamne xam ne loolu la ñuy alal je rek am ko xamne dafa ne la xasabiha moy askam ñu mbokk ci kii iya. la ilaha ki kay duma raw kii ñi mbokk ñi ko jur ñi ko jur jar nañ lu ne mhm. ndeyam daa baax baayam baax ay mbokkam yépp dañu baax ay gor lañ luy màtt gor ba leen gisee ŋàng kii kii kay dama raw kii na woo man daal yi ngeen wax yépp xool ma waaye daal xam nga li ma gis ci xale bi ba tax mu topp di diini xaa dafa am diini mhm. sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag koo koy waaja nag mhm. fa zar bi zaati diini bari bari yadaaka mu ne am diine jigéen ji am diine mu ne bu ñu wuti yii yëpp mu ne day day day jeex taar ba day jeex oh, oh, oh. léeg-léeg nga dégg ñu ne oh diw ñu ne foofu oh, ndeysaan ay kii moo ko fekkee mu nekkee ci ay dëndëm waaw ku ko xoolaan rek xoolaat ko tey nag chet tit tit ah tey moom <laughs> kii nga waroon alal waaye tey moom chet tit amatu dara kon diine mu ne kon utal ko ku am diine ku am diine ngir say doom ji ci am doom ja àq la ci moom ngutal ko ndey joo xam ne ku am diine la ndax mu mën koo yar ci diine waaw ah mu ne kon ut nga soxna su am diine kuñ yar am jikko ju rafet nga indi ko sa kër mu nekk yow yàlla indi ci xéewal defal la ca doom mu ne àq doom jooja yow bàyyi mu ne àq doom joojo dafa am àq àqam mooy lan mu ne li ci njëkk am na doom mu naa mu ne na ko tuddee tur bu rafet na ko tur bu rafet nga tuddee ko mu ne tur yi gën a baax ci tur yi nag mooy Mouhamed wala Abdallah ci tur yi góor yi Abdallah wala Mouhamed fekkee jigéen la ay Fatima ay Ruqiya ay nangam nangam nangam yooyu roqee la ñuy wax daba ñun ah kay Ay, yi mare marraine Aïcha mooy soxna yonent bi di sama soxna Aïcha mooy soxna yonent bi di sama soxna léegi dañ nga jàkkaarloo waaw mar waaw Maria Mariama nekk nee ca gannaaw mana nga nee mooy présidente xool ko bu baax nga xamee ko mooy borom calebasse ndax mu jox la ci calebasse <laughs> Nah mau jual la ci wow. waaw waaw Mariama ini, ngi nii alam bayang ini. kër Aada <laughs> Mbaye ngi nii mu ne mu ne na nga ko utal tur rafet sa doom nga tuddee ko tur rafet ñun nag suñ problème mooy dañuy am doom tuddee ko tur rafet moom mu dem ay xaritam ko sama Tidiane ay xaritam Wow. yàq tur wala ñu yàq ko ngir lan ngir aaday aad aada ngir aada danga gis ñi nga xam ne yàlla day nattoo ñuy am lu ñu am mu mu mu mu mu wàññeeku maanaam mu génn àddina maanaam du ñu am lu des doom bu ñu am rek day dee ñu naan ñu tuddee ko naan yeggul ngoon kenn kenn bëggul wala yeggul ngoon yàggul yoon yàgg <laughs> ñi am na ak xeer ba ak peer ba xar peer ba xar waaye def nga ñu ay tur ay perba xaram moom la ma jëm ah ñoxor ñoxor ñoxor mooy lan téer téer ñoxor ah maxari maxari maxtaar lañ yàq xoolal maxtaar moom lañ yàq naan maxari abdallah ñu naan laay laay laay Diop déedéet abdallah la tudd Mansour Mouhamadul Mansour ñu naan sóora sóora <laughs> zo zo lan zo waye bama ma xëss sama xol bi li ci génné ma rek bàkk Cheikh Ahmed Tidiane ngaan ko xëss ah ku tol ni Cheikh Ahmed Tidiane mi ngaan ko xëss waye sa do lu wax Cheikh Ahmed Tidiane sa turandoo lu wax am ko dox ko dox ko doxal ma ko <laughs> العوبي العوبعان هذا تربية نعم المربي مربي خلقي الله نقله شخصي كل دقيقة صلاة يسبل نجاة خمنا يا يا يا sopp sëñ Babacar عليك سيدي خيبرك ونمسيت سسوك مرو ولو خيبانك مرو ونمسيت سسوك مرو ولو خيبانك وصوف الله يمدك جعلك مرو ونمسيت وصوف الله يمدك جعلك مرو ونمسيت لكن تراني ولكن منك وزنبار خليفة بابا أربعة

ci fa ñu way la ci fa ñu way la ci ci fi bu fekke ni ne di ko wala di la di wa ni ka ne ko la ni ka sey ni ya wa si may allah ya rawna ba ay rawna la shaqat al jahl rawna ay rawna la ya ya ta mi da mi ta mi تبل جو عيدنا وشهد النبي كوثر بشر تبل جو عيدنا وشهد النبي كوثر بيت لويت بعيدنا شكل النبي كوثر من من لجاي صار برسول لجاي صار كيف نساجم شبابا كيف نساجم شبابا كيف نساجم شبابا كيف نساجم شبابا كيف نساجم شبابا كيف نساجم شبابا كيف نساجم شبابا mbaax nag. nee na mbaax nag. nit ñi nit ñi xamuñu lan mooy baax. yaakaar nañu baax rek mooy baax rek mooy joxe alal. déedéet déedéet neen loolu baax de. mu ne mbaax dëgg. mooy yëg nit ki. mooy am yëg ci nit ñi. dafa am yëg ci nit ñi. Ah? waaw. te loolu te loolu am solo la ci doomu aadama loolu mooy loolu nag suñu sens la waa HLM fii la dëkk fii la juddoo fii la yaroo moog ñii ci kaw taabal bi ñoo bokk daayira kon loolu suñu fierté la kon ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax lii nga sumb yàlla nga ci am ndam ci barke alquranul karim ñu jàngal ko fatiha salaatul fatihi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tuur ak seen sant di leen rafetlu tam teewaay bi nekk fii yëpp ñu ngi fi ñëw yëpp maa ngi leen rafet seen teewaay di nuyu imam Malick Sow sa du démb bu nag maar baa seen tukulóor bi moom mi ma jàppale yokal yokal mom mi nga xamantene moma yar bima xamewul sama sama jor ak sama càmmoñ ta dara ñaawul ba sa satu dem ba bu nak ma baasin donay Ousmane ngi ni tok ki lepp lu bax ci man luñ may nawé mom moko def ci man yobul sama fit fit luma motali wuma dépensam ma dépense am ma ci man ak ki fi nek muy assumé di ñaarel xatu jëkëram imam ñu koy ñaanal yalla yalla fi yag lool soppu la malik yalla na fi yag lool ta and ak wer imam yàlla na nga dundul lepp lo beug ci aduna yalla na lako suñu borom defal ta nga fekke ta and ak tal ak wer imam yow li nga beug ya ko xamni yalla nako suñu borom defal ndax yow bax da nga bax yow sa mbax ñaar tuti na ci yow war nga am ngent ndax sa mbax sa xol yaatuna waw waw waw lu bax dañ koy bok lu bon la kenn dul kii mooy sëtu démb bu nang maa baax suñ tukulóor bi déggoo li ma leen wax man maa gën jëkkër man ci Sénégal yóbbuwul sama fit liman man man nag kenn ku nekk nag la mu ñam moo ko xam fit naa lu ma sonalu ma asalem atte wuñ ma bëggatuma dellu Thiès yoonu Thiès sax ku koy wax man dootuma la xool ngir sama pël bu baax bii jàppale ma te doo lay ndox doo lay saxaar bala maa gërëm kenn gërëm sama sang bii soo la Malick papay Mansour Sow ak Ousmane suñu waa kër yu baax yi kon nag yéen waa Calebasse maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay di leen sant di leen gërëm ci confiance bi ngeen am ci man jël seen alal di ma ko jox mu nekk ay millions yu bari ngeen am seen xel bu dal bu ngeen tëddee nelaw lu ma nekk ngeen nekk ci ngeen jàppale ma yàlla na leen yàlla fay yàlla mi am fay yàlla na yàlla fay ci barke alxuraan maa ngi gërëm tamit monsieur le maire mi fi ñëw di rafetlu tam teewaayam macha allah yàlla na yàlla fay gis nañ Cheikh Tidiane mbay tamit yàlla dogal na ñëw na fi moom tamit gis nañ teraanga yim fi def moom tamit yàlla ko yàlla fay ngeen gi fay ñu ngi gërëm tamit kalabaas yi fi teew ak association yi fi teew ak euh, Seydi bi nga xamante ne moom tam teew na fi macha allah yàlla yàlla fay ñëpp dañ maa jàppee imam su ma kenn xamuma woon imaama ma defar imaama tax nit ñi xam ma surtout démb bu naag maar baasin ku ma xool ba ma ngir jëm a imaama tax kon maa ngi koy sant di ko gërëm di leen sant di gërëm ngeen ñaanal la ma ko yàlla mu yaa fi lool tëwéer ci barke alxuraanu karim nekk leen ci jàmm ah macha allah sant yàlla rek yàlla dafa dogal ñu dëkk fii dëkk dëkkin bu rafet nekk nekkin bu rafet macha allah tamit jigéen ñi am passeef di jël xaalis di liggéey di dem di ñëw di góor lu fi waay jël tamit yaa ngi góorgóorlu di ko fay kenn ku nekk rek lépp loo war a daan sa dool rek yaa ngi ciy nekk di gis sa bopp daal ñu ñëm ñu ngi ciy gis suñu bopp mu nekk suñu xaalis boo xamante ne ñu ñoo koy dajale di liggéeyaat ci suñu biir macha allah tamit yàlla ñi ñaan yàlla daal yàlla yokk ko lool lool lool barkal ko kontaan naa trop nag dafay indi yoo xamante ne ay tànk bukki mais yow léegi rek firneen nga wax nga ko ci kanam euh, mbooloo mi euh, ndax yor xaalis nekkul loo xamante ne tey boo yoree xaalis ëllëg li si biir yaa ngi luubal li nga xamante ne euh, alal yi nga xamante ne ñoo booloo ñoom ñëpp nekk tey est-ce que pare ngeen yéen ñi tey seen association bi képp koo xamante ne jigéen nga rek war nga cee mën a roy ci yéen la nga xamante ne ndax léeg nga dem ci ay koñ jigéen ñi ñoo ngi teesante ñoo waxante seen biir ñoo ngi jiiñante seen biir tey loo ñu mën a indi loo xamantene ne mbokku téléspectateur Kabir TV bu ñu la seetaanee rek nañ xam ne bërëb bi ñu nekk ni mooy imam Malik Sow daara ji ku fi nekk rek war nga wone loo xamantene ne exemple bépp jigéen bu yeewu ci biir dëkk bi nga doxee tànk goo xamantene ne waaw loolu yépp dëgg la parce que jigéen ñi ay jàmbaar lañu nangu ñoo ñëw liggéey mën ngaa liggéey te terewul da ngay toog sa biir kër ngay liggéey nga am jom daan doole nga xam ne tamit ñi la dénk seen alal tamit yow gënoo leen dañ laa fonk jox la cër jël lool jox la ko ñoom tamit bu nangu mukk ñu gën laa gore danga nga siy jàmbaar tamit di bàyyi xel tamit ne ba xamee li nga moom ak liñ la dénk daal loolu moo tax. waaw yow nga nekk ndaw nekk awo buru këram liñ fi liñ fi yëkkati xam naa ne képp koo xamante ne jigéen nga rek boo amee loo dañ sa biir xol da nga koy daal di génne teg si. waaw noonu la parce que lan moo tax jigéen ñi ñoo mën a jàppale seen borom kër yi. surtout na góor gu baax bu jàppale ay soxnaam kon kooku war nañ koo sant gërëm ko ngir yeneen góor yi tam bàyyi ci xel te xam ne doo lay jën ndox doo lay saxaaraay góor mooy jàppale jigéen te moom moo ñu jàppale moo tax ñu koy ñaan yow nangu nga mu ñëw ñeneen ñaar ñëw tegu fii waaw ñeneen ñaar ñëw parce que kooku nit ku baax nekk na nit ku baax kooku bi muy am bi muy am ñaar li mu waxoon ba tey teggeeku ko te ñaaram fi mu ne yàgg na fi lool yàlla na fi gën a yàgg incha allah yal yàlla boole. ñu ngi bu baax merci jërë ngeen jëf ñun tam kontaan nañ trop seen teewaay. ñu ngi sant yàlla baax julli ci yonent bi di sant suñu président bi muy Aji Mbay Saw di sant waa Calebasse bi yëpp ñuy sant nag particulièrement imam Malick Saw parce que moom moo ñu dalal ci ci ci Calebasse bi ci daara ji lañ ko dale macha allah ci daara ji lañ ko def ñuy delluwaat sant yàlla parce que dafa amoon ñoo xamante ne dañ ñu jege woon lool jóge ci kàllabaas gi muy aji maram aji maram aji maram Diop aji Maguette Saw Yacine Diop Binta Sall Lamine Sall ne jëkkëru suñu membre boo xam ne ci kalabaas gi la bokk ñu leen di ñaanal yàlla fa ñu tëdd yal na leen gënal fi mu jógee tiis bu metti la woon parce que ñoom ñi fondateur kalabaas gi ñoom la woon ñu leen di ñaanal yàlla fa ñu tëdd yal na gënal fa ñu jógee ci daraja yonent bi merci jërëjëf